yaay booy. yaay. voilà yaay sama bukaay rëy na yaay. waaw yaay li nga def noo ko mënee. waaw kaay ma wax la nag gis nga yoon ak danga ngaa amul dégg. ma ngay laaj ma li neex. li neex. Médoune moo yoroon di filmer Lamine Samba toog ci case bi ne du wax ak man. waaw. njaga taxaw fee di ree ma ne ko Lamine Samba nu ma def mu ne ma man euh, euh, wax naa diw tax nga juratuma diw tax nga juratuma diw tax bàyyi seex ma ne ko demal tàggu bàyyi seex li da laa ah kon affaire bi trucage la. déedéet tu truqué wuñu ko sax waaye dañ cee def lu ndaw rek dégguloo ma xam nga li neex li gàtt. yaay la trucage la boolu laax naa ko saraxe. Lamine Samba da koo da koo trucage. 70 boolu laax laay saraxe. 70 boolu laax waaw ndax doomu bëri bàyyi seex yombul. jar na ko li leen fi wax tey ci suba neexuma. dëgg la 70 boolu laax fukki fan chaque jour ma génne juróom-ñaari ndab. waaw waaw. loolu daal ndax li nga wax ci suba yëpp pour dàq ndogaan ak mbotaan bugguma yi ngeen di café waaw kon jeex na doom bu mel ni Baye Seex yombul yombul de wallaahu yaxsimu kal mina maman yaa ngi baab de yombul de <laughs> waaw ko da moom dootul waxat moom def na dee ah Zey moom dootul gongo <laughs> waaye yaay yaay damay nuyu nag euh, artistes yi nga toogal waaw nuyu sama doom yooyu nekk ci plateau bi mhm. yàlla def na ne man nag dëggantaan dëggantaan dëggantaan rappeur yi laa faraloon ah. <laughs> ah. mais maman fii la génn. rap yi laa faraloon merci beaucoup maman. rap yi laa faraloon Bayse. waaw xanaa xamoo man rap rek laay déglu. ah. mu rabal la. ah Zeyna da ngay weddi yaay. noppi naa yaay wax ngay de. ma waaw nekk mu rabal yaay jox ma benn léegi rabal ñu ma xool. benn benn tempo. waaw jox ñu benn tempo. commencé def ba pare. ya léegi dama jox baxaw mu dem baxaw demal ci bit bi. ah adi adi baxaw. baxaw dama mère jox ma sa number call jox ma sa high five. non xam nañ eh, dañ ko wax ne boobu laa bëgg dañ ko ko wax. léegi demal léegi demal léegi demal léegi demal ñëwal. jox ma sa number four. waaw jox ma sa high five. yes waaw suñu style yooyu rek. waaw style yooyu rek. <laughs> <laughs> yaay xam naa ni loolu nga bëgg. waaw euh, tey ban ngay développé. pour semaine bi waaw ñu ngi ñu ngi ci maltraitance euh, rek des personnes âgées. ndax suñ demee ba ah, Sénégal amatuñu yërmande ci mag. ak ni ñu ko sañ a wax. Mm. Mm. ba ci kër yi ñu yàkkamti mag yi dee mag yi nga xamante ne. Ah, bibliothèque lañu. Mm-hmm. ñu dem di leen maltraité mm-hmm. sous alimenté lekkatuñu lu baax. Mm-hmm. chaque jour ñu ne soo guddee fan di ñu suul ñun ñëpp. maltraitance boobu nekk ci kër yi tabu la woon waaye dañ koy waxtaanee. wallaahi pour que ñu gën a sargal maam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër yi. ndax ñoo waral coow li waaw xam nga nag euh, Exidus. maa ngi koy nuyu bijou. maa lay fay ah, sama doom Mado. oui <laughs> ak Elfi Elfi dégg naa ngeen naan Elfi laay wax. <laughs> ayse waaw yaay soixante-dix ndabu laax ci yow rek yaay wallaahu yax sibukat mi nan am maa gën ñàkk ma doo doom bu mel ni baar see baay seet ñëpp yombul yombul am maa gën ñàkk ma ñëpp bëgg nañ laa jóg nga taamu ma wallaay wallaay am maa gën ñàkk ma jërëjëf kon yaay bu ca kanamee ñu ànd ak yow sama maam nag yàlla na raw Nelson Mandela ah ah, ah, <laughs> ah gis nga ko gis nga ko danga fayu ko merci jërëjëf léegi ñu àndandoo ak yow alors Zeyna rapidement pour terminer qu'est-ce qu'on a comme euh, alors, euh, commentaire pour finir. Euh, déjà commentaire yi par rapport aux vidéos ñu ngi continuer. Mhm. di wax gars yi ne mën nañ voter euh, toute la journée suba ñu ñëw ak résultat yi sinon ñaxtu bi tam ñi suppo supporter u mbalax maan yi tam ñi ngi ñaxtu sur la page Facebook. suba nga liiral ñu ko voilà suba ma liir ko. ñu ngi ñuy xoj et puis non ma lem lépp rek ba suba. voilà ñu ngi ñuy xoj waaw merci voilà donc ñu ngi ñuy ñu ngi ñu ngi ñuy xoj 11h pile ci Montreux on se retrouve demain man ak sama à de 7h Leen la seule matinale qui vous réveille merci euh, Mame Goor Diazaka sama chef d'équipe jaajëf Baxaw initiateur yi nga xamante ni ñoo assuré Malarman contre rappeur coupe baa ngi remportée par les rappeurs voilà Mame Goor qui revient cette semaine ci Yeewu Leen bi pour qu'on parle de yi nga xamante ni moo ngi ci actuellement ak li muy def euh, di ngeen dégg am solo euh, demain wala après demain il va revenir dans cette émission Baxaw moom yàlla bu mu ñëwaat yeewu leen. bonne journée à tous bonne semaine de travail.